jërë ngeen jëf Aminata Mbengue Ndiaye mi jiite au conseil collectivité territoriale oh. ak Abdoulaye Daouda Diallo mi jiite oh. conseil économique social ak environnemental seeni oh. photo la soleil national xëy ransele ci xët mu njëkk boole ceeg di ñu xibaar ne convoqué nañu député yi ginnaaw suba ci alxames ci session extraordinaire ngir ñu xool nu ñuy def ba jëlee ci réew mi conseil économique social ak environnemental ak au conseil collectivité territoriale président constitution bu ñu mën a ci réew mi conseil économique social ak environnemental ak au conseil collectivité territoriale vox populi nañu bëgg-bëgg jomaay mooy tas au conseil collectivité territoriale ak conseil économique social ak environnemental ginnaaw suba ci alxames ji journal las mi gis ne jomaay dafa piégé waa Benno Bokk Yaakaar teg na ci dañuy xibaar ne ngir ñu mën a constitution bi ba jëlee fi ñaari kuréel di conseil économique social ak environnemental projet de loi bi mooy may nañu nguur aw yoon wu mën a jaar ngir tas assemblée nationale l'observateur nañu jëlee ci réew mi au conseil collectivité territoriale ak conseil économique social ak environnemental donte le projet bi diggoon askan wi bi ñu yootu réew mi bu réew mi ngi ci projet de loi bi ñu bëgg a yóbbu ci assemblée nationale ginnaaw suba ci alxames yi ak jàllam l'observateur ne nañu du yombee noone ndax bu ci député Benno Bokk Yaakaar projet de loi bi woote wëy te boo boolee seeni député boole ci député Benno Bokk bokk yaakaar yi naru ñu leen ko yombal te wana ñu yoon wi ba moo waral ñu woote am ndaje ci seen biir tey ji ci ngoon ngir xool nuñ cey taxawe journaliste mi ngi ciy pexe ngir jële fii au conseil collectivité territoriale ak conseil économique social ak environnemental waaye li ñu doon xaar mooy ñu ne premier ministre Sénégal di Ousmane Sonko dafay dem assemblée assemblée nationale jour tel ngir defi déclaration politique générale ñi ko bëgg def lu ñu bëgg def public yéene gis na ne dañoo juutal njëmbat li tax nee nañu mooy est-ce que générale bu premier ministre bi moo waroon a jiitu le témoigne nañu ginnaaw kuréel gii di commission pour le dialogue des territoires gi ñu fi jële bu yàggul conseil économique social environnemental ak au conseil collectivité territoriale ñoo ca nar topp laaj bi nag Diomaye ci li bi la jour nañu muy pouvoir bi di opposition bi kenn li fi amoon mooy ay premier ministre yu daawul def li leen war honorable député Abdou Mbow ci yéenekaay bi mu fay xamal Ousmane Sonko ne ko nappaate xupaate gi nga fi bëgg indi ngir nit ñi ragal la yow mi ko fi bëgg indi boo moytul yaay mujj di tiit bés bi la jour mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkkit ne député bii di Moussa Diakhaté bind na ab lettre président assemblée nationale ngir ñu samp ab commission d'enquête parlementaire ngir ñu leeral tuuxi doona gi ñuy wax ne moo am ci ONAS journal Tribune di ko dëggal ci xëtamu njëkk mi ngi ñuy wax moom la Tribune ne scandale ba am ci ONAS office national assainissement teere ji na ci assemblée nationale ci ñaari seex yi séq coow li mu di Cheikh Dieng ak Cheikh Dieye journal bi nee nañu am na cim seex mu seexul maanaam am na ci ñoom ñaari seex yi seex muy kàcc këpp gu genn gal këpp ca nabaji siwal ga ca maatam xibaar bi bokk na ci journal A xëy ci njëkk juróomi doomi aadama ñoo ca réer ci ñoom ñeenti mineur nga na ci kenn ko am juróom-ñetti at na ci keneen ko am fukki l'Obs l'Observateur nañu bu weesoo gaal googee suux ca si Siwal ba juróomi nit ñàkk ca seen bakkan am na geneen gaal gu suux ca Kafountine ba yóbbaale ñaari bakkan ñaari bakkan yi ñu jëloon ca Pikine Technopole di bu Aziz Dabala ak bu Boubacar Gano Wali libération ne nañu juróom benn nit yi ñuy tey ci yëf tey jii ci lañ leen di defeere ca tribunal bu Pikine Guédiawaye ak tuumay association malfaiteur assassinat barbarie vol aggravé yéenekaay bi nañu bu weesoo juróom nit yi ñu ci téyegum ba war leen defeere tey ji am na beneen suspect muy juróom-ñaareelu suspect bi ñu naan ko Fallou Diop gaañ ñi ngi koy wër wër gu mitti jamono ji